Assalamualaikum mbokki aduna mbokki Brésil mbokki Senegal, diaspora bi yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar waaw kii ngeen gis ni mooy Assane Diouf moom lan rayee Brésil waa ji ko rey nag moo nekk nii moo ko rey daggate ko dugal ko ci saako rey na ko rey bu ñaaw di ñaan yàlla ngeen dolli ko ñaan yàlla xare ko ci barke bi waa ji mbokk Sénégalam la moo ko rey ba pare daggate ko def ko ci saako. Saam yow laay waxal xam nga ne yow laay waxal Saam yow laay waxal man Bilal maay wax ak yow man Bilal maay wax ak yow maa ngi dem maa ngi ñëw li ma la wax lu na ko def sa bopp bu baax li ma la wax na ko def sa bopp bu baax. yow du yóbboo nga génn Sampolo barki maam Cheikh ma Fall bu yóbboo nga génn Sampolo. booy Sam bul fowee sa bopp bi bul fowee sa xel mi li nga def lépp xam nga ko li nga def lépp xam nga ko say photo ngi si man booy yow da nga dégg xam nga déggoo li ma la barki alxuraanul karim dinaa la rey ak ma tiim sa manday dinaa la rey billaahi wallaahi dinaa la rey